SYNAS ànd ci ak CNTS lu waral CNTS bi moom mooy CNTS dafa di centrale syndicale boo xam ne respecté di di centrale syndicale bu ëpp doole ci réew mi donc pour beaucoup plus de responsabilité ñu doxee doxin bi nga xamante ni kat ci dañ koy teg ci lu lu jaadu moom moo tax ñu jàpp ne affilié à la CNTS moom mooy li gën pour défendre cause artisan yi loolu moom mooy lu waral tey euh, mise en place SYNAS bi congrès bi di bisu tey ñu ñaan yàlla rek liñ ci yéene bëgg ko muy défendre artisan yi moom mooy yëkkati secteur de l' artisanat ñu ñu daal di def waaye nag su suñu wax jafe-jafe artisan yi moom ñëpp gis nañ ko mécaniciens yi fu ñu toog ñu yëkkati leen euh, tey euh, mécaniciens yi ñu ngi si ci ci biir SYNAS à travers euh, Revas président Cheikh Dianka tailleur yi commande publique yi ngeen déggoon daaw blouse yi nga xamante ni tey blouse yi tailleur Sénégal moo wax leen ko ñaaw nañ ko déposé ko joxé ko mais ba tey jii ni gis ngeen constaté ngeen ne élèves yi solu ñu blouse ndam comme cela veut dire que lañu waxone waxoon ne ans lañ ñi jox 10 milliards at bu né dafa melni dañ ko fa bëgg a ci benn at suñu suñu togué di sétane dafa melni ni tailleur ñoo ñaawul blouse fa la ko ñaaw nañ ko à joxé nañ ko à waye waaye ba tey jii ni séddaleeguñu blouse ci ci xalé yi donc cela veut dire que mel na ne bëgguñu sax lancer deuxième commande bi yoy non ni tamit bari na ci ñu wara a ñu war a xool lu ñu war a ñu leeral beneen bi nak nguur mbiru pandémie bi nga xam ne daf ñu touché lopp parce que ñun ay ay ay ouvrier lañ amuñu salaire dañuy liggéey di xëy di wuti di indi ci kër gi pandémie bi ñun la gën a touché donc dañu mujj ñu toog ñu resend suñ euh, euh, ay ay mouvement tey li ñu génne woon ne dañ koy jagleel artisan yi 35 milliards jékki-jékki na 25 milliards dañ koy séddale artisan mu nekk 150 mille ba suñu jon yàlla tey xaalis ba matul séddale wuñ ko artisan yi te yaakaar naa ne euh, fond bi féete na boor ba ñu ba ñu càmbar ko ba IGE dégg ngeen lu lu mu ci mujj mu ci mujj wax cela veut dire que kon lu ñu lu ñu waxoon duñ ci jotati dara loolu lépp nag soo ko boolee yàlla na tey ñu taxawal SYNAS bii nga xamante ni tey affilié à la CNTS ñu mën a défendre suñu cause kaas suñu ay droit ah loolu ñun mënuñu ko xam nga ñun ay artisan lañ dañuy defal commande ne ñun Euh, euh, président de la république dafa bëgg xale yi jàng ci réew mi école primaire euh, ak préscolaire mooy case de tout-petit ñu sol ay blouse yoo xamante ni fii lañ ko ñëwee président de la république annoncé ko dégagé 30 milliards na at bu ne day joxe 10 milliards jox nañ ñu commande yi mu jaar DER fay fay nañ ñu jox nañ ñu tusi defar nañ ko jox nañ leen ko ñu war ko séddale si iyaay iyaay jox ko élèves yi lan moo ko tagga témbéel ba suñu jon yàlla tey actuellement premier trimestre école bi jàll na cela veut kon duñ ko sol ren xanaa kon duñu duñu rawaat ñawaat pour déwén jafe-jafe yi moom se pas à notre niveau loolu moo tax nag moom mooy moom mooy loolu mooy euh, lu waral syndicat bi mooy topp mbir mi fan la ñun suñu ay dossier di tàggee fatiha ak naas yi ak salaatu ala nabi bu waay ñu wedd ñu ñaan yàlla yàlla nañ tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim ak ci alhamdulilahi rabbil alamin bismillah waaw euh, man maa ngi tudd Mor Sow euh, bokk ci secteur de l'artisanat bokk ci SYNAS secrétaire général SYNAS nouvellement élu. nouvellement élu. Mhm. tey lan nga mën ñoo mën. alors tey assemblée générale bi tey ngeen def ko assemblée générale de renouvellement tey lan mooy chantier yi nga xamante ne tey moo taxaw ci kanam artisan yi tey.

ñun jéem jéem ci OPA mënut a sotti ñu nekkoon nañ taxawal li ñuy wax syndicat bi ñu décidé ñu taxawal syndicat ñu ne nañ xool syndicat bi ñu jàpp ne moo gën a responsable ci réew mi ëpp fi doole muy CNTS ñu ñëw affilié ci moom mu ubbil ñu ay buntam syndicat boobu nag dafa am lu ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy artisan yi fi ñu war a yegg te mënuñu faa yegg boobu ba léegi bu ma man cee jukki yu ndaw rek couverture euh, maladie universelle bi mu ngi fi c'est vrai que boobu ku nekk yaay dugalal sa participation mais état mën nañ ci gën a organiser jàppale ñu si benen bi moy liñu wax caisse sécurité sociale moy couverture sociale liñu wax IPRES manam artisan mom bu retraité mom c'est vrai que artisan sax mom man nañ ne mën ta gaaw retraité mais di nga dem ba nek mag ba dootoo mën a liggéey di nga soxla retraite di nga soxla caisse sécurité sociale dañ soxla tamit ay souf yu wóor yu baax yo xamni état daf ñi accompagner ñu mën ci am ay dëkkuwaay mais mën am ay place yu liggéeyukaay yoo yo xamni dañ koy momal suñ bop ndax location bi metti na tailleur yek menuisier mécanicien ñepp dañuy louer place pour liggéey mais lolu mën ta woy beneen bi tamit impôt bi ñu ñuy fayloo ñi koy wax contribution globale unique la plupart ci ñun di ko fay muy 5 pour cent boo déggee 5 pour cent da nga naan dafa yomb mais yombul parce que impôt boobu ci sa chiffre d'affaires lañ koy tiré duñ ko tiré sa bénéfice bu doon suñu bénéfice moom 5 pour cent yi dañuy sant dañuy daw ba daanu parce que imaginer nga liggéey 100 millions 100 millions boobu nga xool bénéfice mu nekk 7 millions ñen la il faut nga fay 5 millions yi impôt soo ko deful doo nekk en règle wala ak magasin lay doon la plupart yi ci ëpp yëpp bokk courant sen courant bi day cher moy gëna cher parce que courant bi dañ ko jappé comme kuy liggéey c'est vrai que dañuy liggéey mais comme ay artisans lañ ay petites et moyennes entreprises lañ nañu jappalé bu ko défé ñun ñu mëna jappalé suñu suñuy employé non seulement ñun ñi nga xamé ñi nga xamté te dañoo nek ay artisans nek ay travailleurs mais ñom fiñuy liggéey ñoko ko moom ak ñi ñu employé ñëpp ñu am accès ci IPRES ak caisse sécurité sociale lool mom moy li nga xamné ne mënatul xaar voilà. très bien ci walu secteur d'activité ñan ak yan lañ mëna a ci artisan yi waaw liñ ci gën a couture mu ngi fi céramique mu ngi fi mécanique les métiers de l'automobile mécanique tôlier électricien auto électricien yooyu yëpp mu ngi fi euh, transformation mu ngi fi menuisier bois menuisier aluminium menuisier métallique corps de métier cordonnier corps de métier yi daanaka yi ñu gën a ràññee moom ñu ngi ci SYNAS waaw ci wàllu xayma nombre syndicat bi ñaata lañ membre yi en ce moment là tey moo suñu congrès consécutif. Nous lu au Sénégal nous ngi autour de 3500 membres en ce moment que je vous parle Et si nous ci de dañuy on va faire dañuy def tournée nationale wër artisans yi ne leen kaay ñu parce que ñun artisans yi suñu loxo ci économie dañ saf saf dañ Nous sommes rip li dañ Nous rip ñun suñu doole suñu force nous la des ba lépp lu ñu ñu mën ko am bëgg nañ sax que tissu yi ñu sol dañ koy jënd artisans. ba ci daf ñoo ndax yeneen réew yu mel ni ay gana Maroc ak yooyu dañ ne origine u tissu bi dafa war a jógee ci réew mi pour pour nga eh, Zelekaf bi instant yi textile dafa bloqué ci Zelekaf bi yeneen yëpp jàll na parce que problème origine la ñu wax ndax réew yi defar tissu dañuy napp yi defarul tissu ne leen yéen il faut tissu ngeen koy defale seen réew te ñun donc war nañoo mën a am ay industrie yuy fabriquer ay tissu war nañoo mën a am ay industrie yu nga xamante ni matière première ci wàllu or bi bijoutier dama leen fàttee tudd lépp loo xamante ni ñun dañ koy faire parce ko mën ndax Sénégal fu mu budget mu ngi tourner autour de 7000 milliards Nous ngi am pétrole am gaz kon ñun bu ñuy wax un pays émergent il faut émergence bi nañ ko commencer ci artisan yi mu yéeg jëm kaw bu ñu ko defee réew mi dox merci La bu mujj bi rek euh, rek covid 19 impacté woon na seen liggéey te fan ngeen toll ci situation covid 19 bi bi mu impacté suñu Le président de la république a wax qu'il dañuy joxe 35 milliards ñu def ay recensement chambre métier dem dikk dem dikk ñu ne non 25 milliards rek doy mais 25 milliards yooyu léeg-léeg ministre bi ne 5 milliards génn na ñu ne am nañu mos léeg-léeg ñu ne 5 milliards génnaat na ñu ne am nañu mos mais ñi jotul dafa bëree bëri ba da ngay mujj naan ana ñan ñoo jot maanaam boo dajaleen fukki artisan nga ne kan moo jot boo sàggalul kenn du yëkkati loxoom donc loolu lu ñu a xoolaat la parce que 5 rek dafa bëri te ñu ngi wax ne lu mat 15 milliards defe naa jot naa génn man de 15 milliards ku ma joxoon mu séddale yi foo <laughs> général pour le SINAS, le syndicat national des artisans du Sénégal. Revenez un peu sur le sens de cette Assemblée générale constitutive. Ouais, cette Assemblée générale constitutive, on peut dire que c'est une première dans le secteur de l'artisanat au Sénégal. On peut même dire en, Afrique de l'Ouest, hein, <laughs> parce que moi je n'ai jamais entendu un syndicat de l'artisanat en Afrique. En ce moment-là, le syndicat de l'artisanat, notre combat est d'essayer de essayer, de nous battre pour avoir au moins accès à la couverture sociale. Quand je dis couverture sociale, il y a la caisse sécurité sociale, il y a l'IPRES. Parce que nous, on travaille, mais il y a les maladies, on a des, on a des, on a des enfants, etc. Donc, ce sont les combats-là. On va aussi accès à, à, des titres fonciers pour nous permettre de bien travailler. Des titres fonciers sécurisés par l'État, partout dans ce Je ne dis pas Dakar seulement. Pour permettre aux mécaniciens de travailler, aux tailleurs, aux tout le monde, tous les travailleurs du secteur, pour leur permettre d'avoir accès à des logements vraiment sociaux de base, mais bien identifiés et sécurisés par l'État. Voilà. Voilà. di wax ni que euh, ministère du tourisme mi signé une convention de partenariat avec le ministère de l'artisanat Le ministère de l'artisanat voilà parce que Tejini, jii développer Tejini, euh, locaux manam ñi bokk ci dëkk ba ñi bokk ci dëkk bi ñoo mëna sukkali artisanat local té tey ñun dañu nekk ci euh, euh, dynamique pour promouvoir le consommer local parce que machallah on voit que suñu suñu artisans yi ils sont très forts ñun franchement amuñu ne ñuy pas ñi nekk à l'extérieur parce que franchement on fait de belles choses vraiment machallah donc, euh, franchement, on vous dit que l'administration euh, sénégalaise, nous sommes prêts à vous accompagner. Vraiment. D'ailleurs, avec monsieur, on a eu à recevoir euh, monsieur voilà, il n'y a pas longtemps, dit Ouartal pour Hall, ensemble, voilà, pour euh, développer le, tourisme et l'artisanat ensemble, pour nous, pour nous, pour voilà, les deux secteurs. Donc encore, je les remercier et je euh, souhaiter plein succès à vos travaux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. région je voudrais également remercier tous nos invités mes chers camarades je voudrais au nom du bureau confédéral de la de vous dire que nous tout le plaisir que nous ressentons aujourd'hui en prenant la parole pour présider le congrès constitutif du syndicat national des artisans du Sénégal à l'entente de mon propos, je voudrais vous transmettre le salut et le soutien fraternel du Bureau confédéral de la CRDS, des militants et des militantes, et vous souhaiter par la même occasion la bienvenue dans la grande famille de la CRDS. Chers camarades, en décidant de mettre sur pied une organisation syndicale, vous avez pris conscience du rôle important que vous jouez dans le développement économique et social de notre pays, en termes de valeur ajoutée, mais aussi et surtout en termes de création d'emplois. Cependant, votre secteur traverse d'énormes difficultés liées au non-accès par les artisans du Sénégal à la commande publique, à l'importation de produits étrangers aux tracasseries de toutes sortes et aux déguisement. Il s'ajoute qu'à l'instar de vos autres camarades du secteur informel, vous ne bénéficiez d'aucune couverture sociale. Vos préoccupations sont nombreuses et seule une organisation syndicale, à notre avis, peut vous aider à les prendre en charge. En effet, le syndicat est la seule organisation reconnue par les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail par, sa ses conventions 87 et 98. Convention 87 il dafa que que bu a droit créer cette organisation syndicale soo qui créer une liberté de boo ko qui warul pousse kenn qui la daf lay neex nga bëgg ko nangu ko del adhéré si, nee na boo ko defee ña nga xam ne ñoom ñooy jiital organisation boobu ya, yaa koy tànnal sa bopp kenn du la ko tànnal seen liberté la ngeen seet ñu leen di jiite beneen bi muy convention 80 ba pare ni état war a ci dugal loxoom pour tànn seen jiit yéen a koy tànnal seen bopp moo di gën a waru leen ko forcé yi kenn waru leen ko forcé yéenay tànn seen bopp seen biir waaye dafa wax ni aussi seen ko defee ba pare état amul droit dugal ci loxoom yenn koy seen liberté la muy convention international boo xam ne gouvernement yi ratifié nañu convention 98 bi nag dafa wane boo defaree sa syndicat ba taxawal ko am nga sañ-sañ di négocier maanaam ñi nga xam ne ñi seen bu yaa leen jiite convention boobu moo la jox sañ-sañ li nga xam ne di moom lay commencé tey yal na ci yal na ko yàlla barkeel bu ko yàlla barkelee incha allahu rabbi ñu ànd ak yéen yu bëri dana saafaru ndax am nañ ci xalaat am nañ ay possibilité te aussi mën na gën a waxtaan ak autorité yi parce que loolu moo am solo waxtaan bu sell

di waxante dëgg ndax dëgg yàlla moo ko moom te sax yàlla nag bañ a def ci loo xam ne bi loolu mooy mooy nekk suñu ànd ak yéen lépp lu ñu mën lépp lu ñu xam lépp lu ñu am daañ ko mettre à votre disposition pour li ngeen xam ne bureau bi ngeen def bureau bi am ndam fii li nga xam ne mooy seen seen seen seen bëgg-bëgg loolu daal moom lañ doon wax di ñaan yàlla nag yal na yàlla motal lépp di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay di remercier aussi kilifa yi nga xam ne teew nañ ci di gërëm juga parce que sama adjoint la ba ngeen ñëwee ba léegi moom laa leen boole wax ngeen ni di def parce que c'est un soldat moom formation militaire la am ndax moom mooy jiite syndicat yi nga xam ne ñoo nekk civil des forces armées bépp liggéeykat bu nekk ci armée muy armée française muy beneen armée te civil nga te am ay problème nekk liggéeykat